merci beaucoup di amaat mbégte ak contentement di ñëwaat fi nga xam ne moo nekk Allô Sénégal ci émission fii ci 7TV mhm. di leen sant di leen gërëm te aussi di amaat mbégte ak contentement di ñaan yàlla suñu borom lépp luñ fi mën di wax rek na nekk njëriñ Sénégal te aussi ni ñuy toog di seetaan lépp loo xam ne xaw na dëng jox ci nga xam tamit ay doomu aadama lañ mais lépp lu ci jub rek yàlla suñu borom la Euh, dalal ak jàmm as alors portuaire ngay liggéeyee port euh, fan yi nag coow li fële ca port bari na euh, ki nga xamante ni moo di seen directeur général di Mountaga Sy fan yi ñu ngi dégg ni que vraiment y a ay recrutement yu nga xamante ni jaarul yoon recrutement yu baree bari yu nga xamante ni seen DG mu ngi koy def ngay liggéeyee foofu lan nga ci mën a indi ci ay leeral lu am la wala lu amul la waaw loolu moo xam naa ne ay tuuma yi nga xamante ni mën nañ ko weddi te boo xoolee démb yàggul dara li nga xam ne moo nekk syndicaliste yi def nañ communiqué weddi loolu mais aussi euh, ma nekk portière mu am ci loo xamante ni mën naa kaa témoin te képp koo xam ni Mountaga Sy ak nu muy doxee balaa moo ñëw poste ak nu mu neppee APIX mm-hmm. ñëpp xam nañu que du def ay recrutement clientèle politique parce que nekkul nit boo xamante ni amee na nature boobu beneen bi aussi tamit ma mën a témoin que ni bu amoon que les syndicats ñoom ñooy njëkk a taxaw toog donné soo mais aussi lenn rek laa ciy ñaawlu Sénégal bu nit di toog di liggéey. Mm. bu ñu mënta encourage ci lu muy liggéey fësal ci lu muy liggéey que nañ moytu yenn accusation yi parce que euh, boîte bu mel ni port ci espace une semaine wala deux semaines nga nekk DG ba fa nekk dugal na fa plus de mille personnes du lu xel mën a. nangu nangu mm-hmm. te aussi ñëpp xam nañu que ni salarié budget moo koy supporté mm-hmm. bu dee budget boo xam ne prévoir uñu ko nan la mën a defee benn recrutement boo xam ne presque plus de mille la c'est pas vrai mais aussi bu ñu gisee ñenn ñu toog di di médiatiser loolu mm-hmm. que dañuy jàpp ne xëy na seen combat dafa am leen li nekk ci ginnaaw mais aussi ki nga xamante moom lañ koy wax jàpp naa nekk nit koo xam nit ku ñu war a sargal la muy Mountaga Sy depuis que ba jël dañ koy li mu ci def nga xool autoroute grand euh, autoroute Ila Touba nga xool les grandes sànc par rapport li nga xam ne APEX da ko doon superviser mhm. mën naa ne lépp dafa réussir li nga xam ne dafa réussir li nga xam ne moo nekk tamit am na lu bëri mu yokk boo xoolee port de Sédhiou port de Ndayane port de Ziguinchor euh, bi euh, Dakar Ziguinchor bi mhm. nga gis nit yëpp tey muy def ak nu mu renforcer yow mu nekk capacité port ak capacité de management tey bii nekk ci moom mhm. te bu nit ñi waxoon loolu laa ah mun nañ taxaw ne non si am na lu mu yokk ci koor bi mais aussi bokk na ci benn régime régime boobu jógee nañ ci aussi xëy na ni place am mu toog bëgg nga ko xëy na boo ko bëggee na nga am nga compétence yi mën a tax ñu mën la dénk poor mais pas ngay làkkatu sa ginnaaw kala bi di jël des accusations yoo xam ne su des accusations non fondées mais aussi tamit man mi fa nekk dama naan loolu amul yaa ngi fa woon avant Mountaga Sy di jël la direction wala mm-hmm. après maa ngi fa di ba fa Cheikh Kanté di nekk ba fa Aboubacar Sadji Bey nekk mhm. am na kon yàgg naa mun naa ba léegi mhm. maa ne Mountaga Sy mais tamit en tant que citoyen mhm. su may gis ñuy gàq deru li nga xam di sama directeur ma am li loolu kat day yell day baax kat ma ne lii ñii di wax amul parce que tamit cette combat de médiatisation dëgg yàlla bu ma ko lii fan yëpp dama am lu ma métti quoi parce que dama jàpp ne cette monsieur là respect parce que même bul dara am na ci li xam ne defal na ko Sénégal servir li nga xamante moo nekk la nation. balaa may ñëw ci Pape euh, li ma lay laaj rek mooy euh, cest à yéen bi nga xamante ni moo di Mountaga Sy bi mu ñëwee euh, yor li nga xamante ni moo di la direction du port yéen nga xamante ni yéenay les agents les employés yi fa nekk est-ce que am na lu changé ci li nga xamante ni moo di seen ay conditions de travail. am na li ci mais am na li ci des te moom lépp lu ñu a gën mën nañu xëy na processus mais am na fu ko fekk. mais am na lu mu ci yokk mais aussi am na ci li nga na ci li nga xamante mu ngi nekk du ko xoolee moo tax ma ne saa si déménagement. lan a ngi ko mu ñëwee mu nekk lu positif. Mhm. ci yéen employé yi. tey boo xoolee am na yenn plateforme yu fa nekkoon yi ci ëpp yi tey aménagé na ko xëy na tey am na ñoo xam ne maanaam seen condition de travail. am mobilité mu di déplacé di liggéey seen liggéey ni ñu ko war a mën liggéey mais aussi boo duggee ci biir port bi par rapport nga gis yenn magasin wala nga am yenn bateau wala nga am yenn produit yi nga xamante ne ni mu fa doon yàggee yàggeetu fa mais aussi kat agent yi nga xam ne dañ fa nekk ñi amoon yenn arrière wala ñi doon réclamer yenn indemnité wala biais yi nga xam sax dañ biais màq yi nga xam sax dañ koy jox par rapport yi nga xam moo nekk retraité mais mun naa li ci ëpp mu ngi def ay effort mm-hmm. waaw mm-hmm. mais rawatina li nga xam moo nekk les conditions